woote bi du jàmm moo tax woote bi am waxtu bi xam ngeen ne ñun suñu wootee conférence de presse waxtu bi bu ñu wootee conférence de press waxtu bi c'est que du jàmm lan mooy du jàmm président Macky Sall dafa bëgg dafa wax ay député am te ñoo ëpp ci assemblée nationale suñu député opposition yi ay jàmbaar lañu ñu leen di gërëm d'ailleurs ndaxte bu juróomi waxtu jotee tey dañu woowoon ci conférence de presse wax ñu li nga xam ne mooy raam assemblée nationale. Cheikh Bamba Dièye ñu ngi lay gërëm di la sant di gërëm mbooleem député opposition yi nga xam ne ñoom nga fi teewal waaye ñoom Cheikh Bamba Dièye Mame Diarra Fam suñu yaay Aïda Mbodj euh, Cheikh Cheikh Bara euh, Dolly ak ñoom seen ak lu ñu jàmbaar jàmbaar jàmbaar jàmbaar jàmbaar ci seen lim mënuñu arrêté li nga xam ne moom mooy li président Macky Sall wax ay député te ñu ëpp ci lim ñu voté ko suba. kon assemblée nationale bi assemblée nationale boo xam ne ñoom nee nañ li Macky Sall indi ñoom ay député Macky Sall la ñu dañuy voté kon mënuñu am yaakaar ci li ëpp ci député assemblée nationale. kon askan wi lañu ñu nar a wax loi bi nag bi nga xam ne moom la bëgg a voté président Macky Sall lim ci namm mooy. képp ku waxati ci Sénégal ñuy salfaañee sa àq ak yelleef de manière flagrante ñuy piétiner say droits les plus élémentaires ñu lay agressé ñu tooñ la mbëkk la fiir la ba pare paan sa kaw képp ku loolu dal danga nga bëgg a fippu président Macky Sall dafa bëgg gannaaw suba ak li mu nar votel suba ñu woowee la terroriste loolu la président Macky Sall bëgg daanaka li mu bëgg kon mooy bu kenn waxati bu kenn sëkkatati bu kenn ñaxtuwati bu kenn xeex pour àqam ak yelleefam maanaam président Macky Sall bu doon tey le 23 juin 2011 ñi nga xam ne ñoo génnoon 23 juin 2011 ak bés ya ca topp ay terroristes la leen jàppee ay terroristes la leen di woowee xam nga ne loolu xel mënu kaa nangu lan mooy terrorisme terrorisme baatu tubaab la li muy tekki méttiwul terrorisme mooy ci wàllu politique ngay jëfandikoo la terreur maanaam terrorisme mooy ci wàllu politique ngir yow nga mën a am ndam nga jëfandikoo xoxotal doomu aadama loolu mooy terrorisme ci tubaab bu dee loolu mooy terrorisme ci tubaab le premier terroriste au Sénégal mu ngi tudd président Macky Sall ndaxte li mu tëj Khalifa Sall c'est l'utilisation de la terreur et de la violence pour aboutir à ses à ses intérêts li mu tëj Karim Wade mooy jëfandikoo xoxatal tiital violence pour njubluwaayam bu dëppoowul ak njëriñu askanu Sénégal mu am ko li mu bëggoon def Ousmane Sonko itam la même chose waaye du loolu rek de euh, saay bu baykat fippuwee ne kenn bu nangu suufam mu yebal ko gendarme wala policier ñu door béykat ak sénégalais yi nga xam ne ñooy xeex ngir seen suuf yi ñu bëgg a nangu loolu terrorisme la donc suba na béykat yi xam ne képp ku bëgg a ñëw nangu seen suufu baay ak seen suufu maam ak maamaat ngeen ne da ngeen di fippu lu nar a jàll suba assemblée nationale day wax ne yéen béykat yiy xeex ngir ngeen téye seen suuf ay terroriste ngeen yéen élèves njàngaan ak yéen njàngaan yu nekk ca daara yu kawe ya ñu leen woowee étudiant bu ngeen génnaatee naan da ngeen di xeex ngir am ay jàngalekat yu doy wala ngir jot seen bourse ndaxte ñoom seen bànneex moo leen gënal fay seen bourse ci waxtu bi mu waree bu boobaa day naan yéen ay terroriste ngeen waaye yéen mii itam ñuy toj seen kër ngeen di xeex ngeen ñàkk fukki at ñaar fukki at ñu ñëw yon yónnee leen descos ngir mu toj seen kër suba bu ngeen génnee ay terroriste ngeen di doon waaye yéen itam askanu senegal ngeen di génn ngir bañ góor jigéenal senegal suba bu ngeen génnee ne d'accordu leen ak góor jigéenal senegal mu jaral leen lu nekk su yéen itam ay terroriste ngeen di doon bu boobaa yow sàmmkat yow nappkat bu ngeen xeexee suba ngir ñu bañ a wanteer seen géej yéen itam d'accord ay terroriste ngeen di doon. kon mbir mi du mbiru Karim du mbiru Khalifa Sall du mbiru Ousmane Sonko du mbiru Cheikh Tidiane Dieye du mbiru Assane Diouf du mbiru xawma Aliou Sané du mbiru Kilifa du mbiru Clédor Sène du mbiru Thiat du mbiru euh, xawma Déthié Abdourahmane Diouf ak ñoom seen mbiru Sénégalais yépp la lii mooy raam ndax rek benn mbir troisième mandat et que donc

résistance boobu nga xam ne suñu constitution da ko daganal suñu ay diine dañ ko daganal waaw à partir de gannaaw suba képp ku fippu yow li nga doon mooy terroriste et donc loolu mënuñu ko seetaan moo tax nag ñuy woo ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen fu ngeen mun munti nekk ci Sénégal ci goxu taax yi ak ci goxu kaw ya fu ngeen mun ti nekk ci Sénégal na ngeen wone à partir de waxtu jii seen ñàkk ànd ak loolu wane leen ko pacifiquement wane leen ko ci full ak fayda wane leen ko constitutionnellement ndaxte am ngeen si sañ-sañ wane leen ko citoyennement waaye wane leen ko ndaxte publier face publier Facebook rek ci résistance la bokk jël sa téléphone woo kilifa diine yi ngir ñu wax balay suba résistance la waaye tamit takk sa lu xonk cu génn ci mbedd bi résistance la ñu ngi leen di woo à partir d'aujourd'hui fu ngeen munti nekk moo xam yaa ngeen dëkk Dakar Plateau moo xam yaa ngeen dëkk Ranérou Ferlo moo xam yaa ngeen dëkk Kolda moo xam yaa ngeen dëkk Ndar moo xam yaa ngeen dëkk xawma ma Koungheul mbaa Kaffrine mbaa Kaolack fu ngeen mun munti nekk wane leen seen résistance à partir de waxtu ji ndaxte kat buur bu dul buur bëgg a jaamoo ñi nga xam ne mosuñu nekk ay jaam jàmmaat loog moom dafa jot troisième mandat warul jar lii moo tax nag ñuy attirer attention opinion publique nationale ak internationale jàmm la ñu waaye lu ñu nangu ñu naan la boo woowee fippu ndax dañ lay noot mun nañ la tëj benn at ba juróomi at boo génnee ci mbedd bi mun nañ la tëj giiru dund maanaam man tey jii nii bu ma defee vidéo def ne résistance mun nañ ma jàpp un ba cinq ans ma bu ma génnee nag ci mbedd bi takk sa takk sa lu ma xonk ak sama drapeau Sénégal ne damay fippu d'accord bu ñu ma jàppee mun nañ ma tëj ba fii ba may dee maanaam dee mooy tax ba génn kaso mooy prison à vie loolu duñ ko seetaan président ma Macky Sall nag nga xam dara contrôle judiciaire liberté provisoire emprisonnement ak loi bii muy waaj a xaw ma jàllale dara duñu tere wax li nga xam ne moom la ñu nar wax ak jëf ji nga xam ne moom lañ nar a jëf mandat bii ngay yoot président Macky Sall troisième candidature bii ngay yoot président Macky Sall dina am fu la yóbbu dina la yóbbu ci mandat waaye du doon troisième mandat mandat de dépôt nga jëm jërë ngeen jëf.